يا أيها الذين آمنوا mbokk yi ba ñu santee borom bi wa taala sant goo xam ne sant gu bare bari la ci xéewal gi ñu xéewalee ñu bokk ci ñu gëm yàlla bokk ci lislaam di ko sant ci lim ñu boole ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli di selmal ci yenent boobu nga xamne moy mooy gën jimbi def ak ñoñam ak sahabam ak kep ko xamne ya yaa di top ci lu baax bu bes penc imam safii fay wax lu am solo lo xamne ñun ñepp mën nañ ci am mu nek lo xamne dañ ndam la koy amé ci weeru koor gi nga xamne mom lañ jublu ci mais lu upp ci askan wi nak bu ñeen waxe waxee koor ñom dañu tit tit parce que yapp nañ dañu bayyi lek bayyi nan bayyi leneen lo xamne du lek ak nan te weeru koor saxaaba yi comme ni ñu ko doon defee buñ ne weeru koor gaa ngi jublu si dañuy kontaan ñoom dañ ko doon teeru six mois avant muy ñëw waaye ñun moom jàpp nañ ne weeru koor gi bàyyi lekk ak bàyyi naan la jeex na moo tax buñ ne weeru koor rek ñun ñëppay tiit te warta demee noonu ndaxte weeru koor weer la woo xam ne li ci nekk ay xéewal li ci nekk ci ay promotion comme ni ko imam doon waxee li ci nekk ci ay promotion ñun ñëpp promotion amee dañuy gis ni ñuy tawee di dem di crédit weeru koor gi nag moom moo ëpp ñii dañ naan cent pour cent mais 1000 pour cent weeru koor gi loolu la parce que am na benn guddi goo xam ne sax moom moo gën alfu shahr imam Safiyaan lan la wax daf ne dollalul dollalul ci ragal yàlla te ragal yàlla weeru koor dañu koy jox ndaxte xamoo guddi gi nga xam ne nii ci lañ nekk ndax danga ko paaseem déet mu ne bëri na ab seet boo xam ne dañ ko defar ba mu jekk yaakaar na danañ ko jébbal jëkkëram avant muy yi mu dee mu ne bëri na koo xam ne dafa wér ñépp ne macha allah ndax wér gi yaram avant jant bee soo fekk na jébbal nañ ko boroomam bëri na buur boo xam ne mu ngi fanaan ci biir paleem di bég ak i dagam ak léppam jàpp ne kii kuy nar a gudd fan la ku nar a yàgg ci réew mi la balaa fajar yàlla jële ko fi ñu suul ko ci ab bàmmeel bëri na koo xam ne dana xëy ak yow xëy ak yow ngeen di gisante balaa ngoon yàlla jëlee ko fii kon li la war yow jaamu yàlla mooy na nga sax ci ragal yàlla ndaxte loolu kese moom moo lay li nga xam ne nii moom moo la mën a musal loolu nag nan lañ koy amee weeru koor occasion bu rëy rëy la pour ñu am ko ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne jaamu yàlla yi bu ñu xamoon ni nekk ci weeru koor kon danañu mébét weeru at mi yépp nekk weeru koor mais ñun am na ci ñoo xam ne fukki fan yu mujj yi sax moom la ñuy assuré am na ñoo sax juróomi la na ñoo xam ne sax du leen fekk fan jàpp nañu yàlla dañuy foye ramadan mu ngi ci bunt yi weeru koor yàggu dara rek ñu ngi tàggu rek weeru koor yàggu dara ñu ngi naan weeru koor gi passé corrigé nañ jàll na léegi ñu ngi ñu ngi teer teeruwaat weeru koor quelques jours rek ñu woor te wóorul sax ndax yu jours yooyu doon des ndax danañu fekk kenn mënut a assuré ne weeru koor gi dana mën fekk kenn mënu koo assuré ci ñun kon yàlla ñu fekk ci jàmm mais li may ñaan jullit ñépp mooy bu ñu fi weeru koor gi fekkee nañu fexe ba ñu wooree ko comme mu nekk at moo xam ne mooy at mu mujj wala weeru koor goo xam ne mooy nekk suñu weeru koor gu mujj ci suñu dund ku am yéene googu rek danga nga koo def ni ko yàlla diglee mais boo amul yéene googu noonu jàpp ne yow mun naa am beneen weeru koor fekk la fi pertement lay doon kon weeru koor gii yàlla ñu fi fekk te góor góorgóorlu ba ñun ñëpp ñu woor ko comme mu nekk weeru koor goo xam ne moom mooy weeru koor gu mujj ci ñun ndax xamuñ ndax at mi nga xam ne moom moo ci topp danañu fekkam déet benn borom xam-xam boo wax bu rëy dafa daan weeru koor ni mu tudd ci arab moom mooy ramadan mu ne raa gi rahma la yërmande miim gi njéggal la mooy maxfira baa gi mooy demande la demande la boo xam ne confiance la boo xam ne yàlla da la koy jox pour aljanna amaan gi nag alif bi mooy sécurité la boo xam ne yàlla da la ci ci safara mais nuun gi leer la nuur goo xam ne day jugee ko ci yàlla mais boo ko defee ni mu waree kon nañ ko defee ni mu waree borom bi subhaanahu wa taala wax ne yéen jullit ñépp jullit ñi ñi gëm yàlla nag moom lay waxal ku gëmul yàlla bokk kenn ku nekk nag mun ngaa xool sa bopp ndax gëm nga yàlla am déet farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataalee woon ci xeet njëkk ya lan mooy objectif bi pour nga mën a nekk koo xam ne da ngaa ragal yàlla kon boo génnee ci weeru koor gi te sa ragal yàlla yokku bu yeboo nga xam ne wooroo borom bi subhaanahu wa ci aaya yooyu noonu dafa am aaya yoo xam ne moom la kutiba aleykum siyaam avant muy indi aaya farataal koor gi dafa am aaya bu mu jiital am aaya boo xam ne moom la mujjee am aaya boo xam ne moom la ko wërale aaya bi mu jiital mooy aaya bi wax ci xisaas mooy fayu ñun suñu réew mi daanaka ay jullit lañ mais duñu àtteewoo diine mais bu ñu doon àtteewoo diine danañ xam lan mooy xisaas xisaas mooy ku la gaañ dangay dem ci attekat bi ñu natt lim la gaañ nga fayu ku rey dañ rey ku sàcc ñu dagg sa loxo loolu mooy lislaam fay googu noonu borom bi subhaanahu wa taala dafa ne loolu ab dund la te ñun ñëpp xam nañ ne koor dund la koor ci boppam dund la parce que wér gi muy def ci yow ni ngay mën a organiser woo mais nag ñun weeru koor gi bu fekkoon ne avant muy ñëw dañu peser boo pese peser sa bopp ñu ëpp ci ñun bopp boo peser sa bopp boo nekkee 70 kilos bu weeru koor gi jeexee boo moytuwul 80 kilos ngay doon wala 90 te normalement weeru sa poids yi dafa war a wàññeeku mais ñu ëpp ci ñun dañuy changer heure lekk gi mais ndékki geeg reer geeg añ bi moom dafay des day sax ëpp ay temps parce que heure lekk gi lañ changé te weeru koor warta demee noonu beneen aaya bi nga xam ne nii moom la mujjee borom bi subhanahu wa taala aaya bi mujjee mooy aaya bi wax ci bu leen lekk seen alal yi seen diggante ci ay caaxaan ak i naxantee ki tappale mooy def lu araam ci lekk alalu jàmbur wala nga def leneen lu araam loo xam ne sax bokkut ak lekk alalu alalu jàmm te koor loolu la fees dell ndax koo xam ne tere nga sa bopp lekk tere nga sa bopp naan ak lépp loo xam ne luy dog koor koor la nga tere ko sa bopp fajar ba ngoon jot nga doog a lekk doog a naan waaw kuy def loolu est ce que war ngaa lekk alalu jàmm ci loo xam ne lemu est ce que war ngaa def lu araam kuy def loolu yaakaar naa ne léegi moom nga war a gën a gën a moytu beneen aaya boo xam ne moom la yàlla wëralee aaya yi mooy yàlla def ne laysal birru an tuwallu wujuhakum xibalal masriq wal maghrib mbaax nekkul ci jublu penku mbaax nekkul ci yooyu yëpp baax am na aaya bi lu ñu ko cité ba mu jeex ci lu gudd a gudd gudd mooy nga gëm yàlla gëm alaxira gëm malaaka yi gëm téere yi arkaanul islam arkaanul iman yëpp la cité ngay def lu baax dimbali nit ñi loolu mooy mbaax traité yëpp ci yu mbaax baax yi la bokk waaw weeru koor lan moo ko ëpp lu baax weeru koor amul lenn lu ko ëpp lu baax parce que yu mbaax yu baax yi nga xam ne yàlla dala kaa yëpp da koy def ci biir mu la koy augmenter boo saraxee mu ful ko boo jullee mu ful ko lépp loo def ci lu baax mu ful ko kon weeru koor dara ëpp ko ci lu baax kon nañu ci góor góorgóorlu nañ ci góor góorgóorlu bu baax Seydina Yusuf ab buur la woon ñu ñëpp xam nañ ko buur la yonent la da def bu wooree tey dog suba bu wooree tey dog suba garde corps bi ne ko waaw Seydina Yusuf yow ak li nga am ci alal ñépp wër la lan moo tax ngay woor mu ne su ma ko defut damay fàtte ñi su ma ko defut damay fàtte ñu il faut muy woor ndax bu ma fàtte ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ñàkk ndax bu ma fàttee ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñoom ñooy xiif kon nañ ci góorgóorlu bu baax tax bu ñu fàttee ñi nga xam ne nii ñoom ñooy xiif bu ñu fàtte ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñàkk ñu jégalu suñu borom subhanahu wa taala te moom mooy jégale ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu fekkee weeru koor gi kon mbokk yi gannaaw ba ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam ak i ñooñam ak i sahabaam benn question rek la ñu laaj yàlla def ne ci biir alquran ji yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam pourquoi mu jël weeru koor indi ko ci diggante ngëm ak ragal yàlla pourquoi ci aaya bi mu ne yaa ayyuha alladina loolu mooy ngëm bi te fin mu tëjee ko la'allakum tattaqun mu jël koor dugal ci diggante bi lan moo tax yàlla def loolu ndaxte ngëm secret la boo xam ne diggante jaam bi la ak boroom te secret boobu fan lay nekk ci xol lay nekk ngëm secret la diggante jaam bi ak boroomam fu muy nekk ci xol ragal yàlla aussi tam ragal yàlla secret la boo xam ne diggante la ja diggante ak jaam bi la ak boroomam fu muy nekk ci xol lay nekk koor itam secret la diggante jaam ak boroomam secret la diggante bi ak boroomam parce que mun ngaa dem fële lekk ba suur naan ba màndi ñëw ci kër gi ne damaa woor ku koy xam kenn du ko xam ku dul yàlla kon sa secret la diggante jaam ak boromam li wéral diggante jaam bi iman bi yàlla daf ne kataba fi qulubihimul iman yàlla moo wax loolu ci alquran yàlla moo bind ci seen xol yi ngëm beneen hadis yonent bi ne taqwa haahuna ragal yàlla ci ci xol la nekk koor itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ki ko xam moom mooy borom bi subhanahu wa taala ndaxte mun ngaa julli ci kanamu nit ñi mun ngaa woor ci kanamu yalla kesse mom moko xam kon koor ak ragal yalla ak ngeum yalla yoy yeb seni place mom moy xol da ben pacte la am moy ben contrat la am moy contrat secret entre yow ak borom bi subhanahu wa taala kon nañ ci lu bu baax ndax ken xamul kan mo wor kudul yalla ken xamul ngeum kudul yalla ken xamul ragal yalla kudul borom bi subhanahu wa taala kon bu ken nax ken borom bi ay yeb ba ko waxe da ka tije ben bo xamne muy wax ci weeru koor ba mu yàgg rek mu dugg ci ñaan mu ne sama jaam sama jaam bi sama jaam yi buñ ma laajee buñ laajte ñun ñëpp dañoo am honneur googu noonu yàlla boole ñu ci boppam waxul bu jaam bi laajtee mais sama jaam yi man yàlla sama jaam yi kon yooyu loolu dañ ko war a sante yàlla di ko tiitaroo ndaxte yàlla dañoo idaafa ci boppam sama jaam yi la wax waxul jaam yi buñ laajtee te am na ay yu bëree bëri ci biir alquran danaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu la jaam yi laajee nangam ne leen tontu bi mooy nangam bu ñu la waxee nangam ne tontu bi mooy nangam ba mu des aaya bi ci alxuraan aaya bi newul yënte bi wax leen nangam déedéet ba mu ne ko sama jaami buñ ma laajee buñ ma ñaanee ne leen man ku jege laa ba amul ne leen sax ne man ku jege laa rek man ku jege laa buñ la laajee man ku jege laa direct parce que yàlla bëggul digganteem ak jaam bi lan am ci waxal am ci waxal am ci dafa bëgg digganteem ak jaam bi nekk lu direct nga xam ne kenn xaju ba pare bu ñu ma ñaanee parce que xam na am na ñeneen ñoo xam ne danañ ñaan keneen ku dul yàlla kañ laa leen di tontu nag mooy ci saa si laay tontu ci saa si laay nangu ñaan gi du xaar at du ma xaar ñaari weer ak ñetti weer déedéet ci saa si laay ñaan laay laay nangu ñaan gi mais kañ bu fekkee ne man la ñaan ñaanuñ keneen kon ñun war nañoo xool suñu ñaan yi est ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala wala déet yeneen bi sallallahu alayhi wa ne jaam bi am na benn ñaan boo xam ne heure buy toog yàlla du ko delloo da koy nangu comme ñaanu kuñ tooñ la kon am nañ vingt-neuf ñaan wala fanweeri ñaan yoo xam ne mën nga ñu koo ñaan ci weeru koor gi te yàlla du ko delloo dañu koy dañu koy nangu dañ ko ñaan nag comme ni ko aaya bi comme ni ko aaya bi waxee kon objectif li nga xam ne mooy weeru koor mooy lan ragal yàlla mais nga sa bakkan bi yeggale ko ci dayo bi nga xam ne moom la ko yàlla bu borom bi subhanahu wa taala bëgg a yeggale mooy nga nekk nit koo xam ne nit ku mat sëkk nga yokk relation bi nga am ak borom bi subhanahu wa taala loolu nag li koy yombal li koy yombal mooy nga takkoo alquran takkoo jaamu yàlla yi yokk jaamu yàlla yépp takkoo sarax yokk ko ak lépp lu baax loo xam ne dalay yokk tiyaabo di yokk sa diggante ak sa relation ak borom bi subhanahu wa ndaxte weeru koor li gën a yomb ci weeru koor mooy bàyyi lekk bàyyi naan ak lépp loo xam ne day da koy yàq ci ay bànneex looloo gën a yomb mais li ci gën a jafe mooy nga taxaq ci weeru koor ni ko nitu yàlla dëgg dëgg yi di defee te loolu mooy la nga bàyyi lépp loo xam ne muftiraat maanawiya la ak muftiraat hissiya mooy sa nopp yi bu ci déglu lu dul lu neex yàlla sa làmmiñ bi bu ci wax lu dul lu neex yàlla sa bët yi bu ci xool lu dul lu neex yàlla xalaat sax boo ko mu mënee te loolu nit dëgg yàlla dëgg dëgg yi ñoom ñoo koy mën bu ci xalaat lu dul lu neex yàlla te li may wax nii nag ñun ñëpp xam ne kenn ku nekk xam nga li ngay xool neex na yàlla am li ngay dégg neex na yàlla am déet li ngay wax neex na yàlla am déet bu kenn nax sa morom parce que yàlla ci borom borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alxuraan bi kenn ku nekk am na lu lay niital bu fekkee tappalee woo am na lu lay niital boo xoolee lu neex yàlla yow sa bopp xam nga boo xoolee boo dégloo lu naqari yàlla yow sa bopp xam nga kon kenn ku nekk bul nax sa bopp parce que yàlla moom kenn mënu koo nax kon jaamu yàlla yi subhanahu wa taala comme ni ko borom bi subhanahu wa taala comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee mooy koor day tax ñu ragal yàlla ki doon bayaan sànq wax nañu ñaari ponk yi nga xam ne moo ci ëpp solo mooy yéene ji te leeral na ko imaam Malik def ne bu weeru koor ji taree guddi gi rek nañ yéene weeru koor gi yëpp tànk doguñu jarul ñuy beesalaat yéene ji mais ñeneen yeneen borom xam-xam yi ñoom dañ ne sax guddi dañoo war a dañoo war a yéene beneen bi mooy ñaari farata yi beneen bi mooy ñu bàyyi lépp loo xam ne lekk la naan la ak comme ni ma ko waxee sànq lépp luy yàq koor moo xam maanaa la wala xis yi lépp lu yàqu koor moo xam jëw la moo xam wax lu dëgg la moo xam lu mu la doon kon yàlla nañu yàlla may ñu fekke weeru koor gi ak jàmm te yàlla dimbale ñu woor ko ak jàmm te yàlla nangul ñu liñ ci woor lépp te ni ma ko waxee sànq ci xutba bu njëkk bi nañ def weeru koor gii ñëw comme weeru koor bu mujj ci suñu dund comme weeru موجو كي mujj كي suñu دوند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يقول سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله يا